a jóg mooy listixaar bi nga xam ne ku ne mën na koo def yonent bi sallallahu alayhi wa digle ko saxaaba yi ne ñun de yonent bi sallallahu alayhi lu ne jàngal nañu ko jàngal nañu sax naka la ñuy tànn looxee suñ borom suñu dogoo pour def mbir naka nga koy defee dangay julli ñaari ràkka soo paree nga wax kàddu yile yow yàlla maa ngi lay tànnloo ci mbir sàngam mii ma bëgg a def si su fekke gis nga ne mo gën ci man hmm. ci suma dundin ci suma diine ma hmm. nga lay ñaan nga dogalal mako defal mako mu am waye su fekke ne li ma bëgg ni da nga gis ne gënul ci man ci suma diine ak suma dund ma hmm. nga lay ñaanal nga génnee ko ci man ta nga wattal mako leneen lu gën ci man so xeye lo dogu rek defal li moy liste kharatu sunna do xamni dang koy defal sa bop waaw ñaari rakka waaw waye ngi dafa bëgg a maye doomam. waaw tey ni ñuy def mooy beneen listixaar bi la def. Mm-hmm. waaye ngi dafa bëgg a tukki. Mm-hmm. beneen listixaar bi la ñuy def. Mm-hmm. waaye mënoon kenn ku ci ne mënoon naa defal boppam bi mm. waaw ndem li ngay def. lu da su boobaa moom doo doo doo gis de doo gis sarax ci loxo yàlla da nga baxee yàlla mbir yi. <coughs> comme que nag julli nga ñaari rakka wax nga kàddu yi baxe nga yàlla mbir yi. dogul ne la nga la ngay jàpp loola moo gën ci yow. su ko ñëpp doon def nag mhm. mucc mhm. beneen listixaar bi mhm. wér na de waaye téeméer yoo ci dégg na ma yàlla jéggal soo moytuwut 90 percent ba yëpp ay kalas-kalas daf ci bare parce que téeméer yu ne fekk borom daf laa xam wax la xamuñ ci dara dañ ci xamul dara sax ñenn ñi xam waa daf dañ lay wax li la neex parce que fi ne tey euh, nit li ëpp ci nit ñi tey su ñëwee di xaarlu walla ñëw di seetlu Eh, soo moytu 90 percent yi li ñuy seetlu si danañ la ko waxal balaa ñu koo tàmbali ñaareel bi teg ci mhm. psychologiste bu ne mhm. ki muy waxat dafay xam soo moytuwul 90 percent lim soxla ndax yow nit kuy sëy nga mhm. wala sëyloo ndax yooyu benn bu ci am na nu laate ku palaas nga kenn ku